nuyoo ak dalalaat ak jàmm chaîne chaîne bi de Leader TV di wax ne bu leen fàtte abonné ñu ñëw ak yéen si revue de ci njëkkee yéene kaay bi groupe Futurs Médias ñu gën xam si record moom record moo nga fësal sa xat yu njëkkee suñu gaynde football yi àndandoo ñoom Sadio Mané ak ñoom Abdou Diallo gannaaw match boobee nga xam ne dañ si war a jàkkaarloo équipe di équipe bu benn si fukki fan juróom-ñaar si weeru juin boobule match nag moom journal bi mi ngi ñuy xamal ne onze de départ yi nga xam ne Sénégal moom la daan tembale yooyu la onze de ñoo ngi si xaar ay changement yi nga xam ne war na ci fay fekk ay kàddu Jumaa si Camara moom Jumaa si Camara mi ngi yëkkati ay kàddu jëmale ko si match boobee nga xam ne Sénégal daf si war a jàkkaarloo équipe boobee de équipe Brésil match amical la bett ndax Sénégal dafa war a mën a dóor Brésil match amical ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk finalu Ligue des champions boobee nga xam ne doon na am si diggante Manchester ak Inter Milan Manchester City nag moo dóor Inter benn bal ci dara ginnaaw record dañuy jàll réew Abdou bi gannaaw mu ngi ñuy xamal ne am na ñetti club yi nga xam ne bëgg nañ ko foofee sa Angleterre ba ginnaaw Rewmi Quotidien dañuy jubali journal bi di La Tribune moom journal bi ma nga fësal sa xët yu njëkkee mbër mii di Modou Xarañ Lo gannaaw interview bi nga xam ne da doon amal Modou Xarañ Lo nee na day génn si làmba ba set wecc lépp li nga xam ne mi ngi nurook lamb da say raxasu ba set wecc ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk mi ngi gannaaw saison exceptionnelle bi nga xam ni kookee di alaan def naka moom journal bi mi ñuy xamal ni kii di alaan nag est waruñu ko jox Ballon d'Or 2023